la waay nu am ngëneel bari hidaay te yàgg bàkk jile waay am ngëneel bari alhamdu noo ngi sant buur ak sant gën tamoonu war ndax ñàkk nan ci wile weer Cheikh Moussa Abdoul Aziz Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bi sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Xaadimu Rasul tey ñu fii ci daara yi maam Baara Mbacke mu Cheikh Mouhamadou Moustapha mu sëriñ Abdoul Aziz mu sëriñ Baara mu sëriñ Touba euh, lii nag day lu am solo ndax euh, dañ na xayrukum man taallama xuraana wa allamahu euh, fi mu bokk bu demoon ci leneen moom lay mooy gën a mën a bette que sëtub sëñ Touba mi ngi defar jàkk ak daara di jàngale alxuraan karim loolu moom wërta jommal kenn waaye li ci am solo nag du def gi rek waaye jom ji ak fulla ji ba mën koo taxawal loolu mooy foofu la yëf yi nekke ndax ku ne war ngaa taxawal ab jullit bu ne war ngaa taxawlu taxawu alxuraan waaye dafa rawete njabootu Sëriñ Tuubaa kon moom li muy def devoiram da ko dafa war ci moom waaye lim lim li fi ñu koy fi ñu euh, euh, ñaaxe ak di ko félicité mooy jom ji ak fula ji ba mën a taxawal li kon nag sëñ Mame Bara say kilifa say waajur sëriñ Sidi Mbakke sëñ Aziz Xaarim sëñ Aziz Ahmed sëñ Abo sëñ Xaarim bu sëñ Abdou Karim ñëpp ñëw visité daara ji nii kon xam nañ ne am nañ contentement bu rëy. mu mu dajeeg nag ñu ne suba mooy màggal sëñ Moussa Abdou Aziz te ku xam sëñ Moussa Abdou Aziz bañoon na ko ba ay taax sax moom daara la ci bëggul woon moom àll be rek. mbay jàngale alxuraan dimbale kuy jàngale alxuraan taxaw yoonu Serigne Touba wi ak taxaw kër baayam sëñ Moussa waxul woon dara ci ay taax àll rek. mas na maa wax ne man de maay jógee Charles de Gaulle wàcc Léopold Sédar Senghor fanaani fanaani Mbàkke ki eh, jumaada ki mbaam jigaan ma ne ko sëñ bi yow loolu kon sëñ bi ci turu sëñ Abdul Karim moo fi toogal sëñ Abdou toogal fi sa waajur sëñ sëñ Modou Bara ñu ngi lay gërëm te di la sant te ñaan yàlla mu gën laa dëgëral gën laa kattanal gën laa dooleel ba lii nga taxaw muy gën di yokk rek en tout cas fierté kër sëñ Moustapha nga fierté kër sëñ Abdoulaye Bara nga fierté waa kër sëñ Touba nga ndax li ma wax fee léegi rek même boo amoon kilifa gu baax lu mu baax baax ñoom yilif bu fekkoon ne am na nuñ mel yow da ngay am coono waaye loo baax baax nga yilif ñu baax yow da ngay am noppalu te baaxaay gi nag mi ngi lu jëm ci yàlla jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam jërë sëriñ Touba te loolu mooy taxawal lislaam te lu gën lii daa amul ci àdduna jàngale alxuraan mooy defar doomu aadama ndax képp ku alxuraan jiitu ci yow nga jàng ko lu ñëwat day yomb ci yow ci sa am xol boo xam ne nii dala la jariñ fii ci àdduna jariñ ci àllaxira kon sëñ bi kàddu yooyu rek lañ ci amoon jërta guddal liñ ci am mooy di la ñaanal ak di la sant rek te ñaan yàlla lii ne barakatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Ahmadou Bamba mamar si yàll ko nga lawaay nu am ngëneel bëri hidaay yàgg bàkk jile waay Cheikh Moussa Abdoul Aziz mamar si yàl ko ngalawaay noo am ngëneel hidaay te yàgg bàkk jile waay Cheikh Moussa Abdoul Aziz alhamdu noo sant buur ak sant gën tamoon war ndax ñàkk nan ci wile weer Cheikh Moussa Abdoul Aziz